donc euh, moom tamit euh, ma di ko ci gërëm nag. di ko sant parce que temps boobu c'était pas facile yombul woon. xam nga tu mais jàppoon na ci daal. macha pour man tey. macha allah ñu ah. daal di rek waxtaanee li nga xamante ne mooy li mm-hmm. ngay fêté. Mm-hmm. mooy say vingt ans wu. carrière ànd carrière ak euh, sa bande musicale. voilà. lan nga ciy yëg donc loolu comme euh, je disais tantôt rek que ni mbégte la pour man parce que vingt ans du vingt jours. Mm. te ku nekk ci benn affaire di ci yëngu pendant vingt ans. nga mm. ma ngay féete vingt ans. Mm. c'est parce que daj nga ca lu ne. Mm-hmm. gis nga ca lu ne. parce que c'est pas facile. du tout waaye bu la yàlla dimbalee na nga dem bay def vingt ans. kon bon c'est parce que y quelque chose de positif. dénk ko nag loolu nag. xam ne am na say fans yoo xam ne ñi lay ñaanal te xamuñu la ñi la bëgg tout et donc ñooñu ngay jël nag nga xam ne comme ñoom mënuñu ñëw boîte de nuit mënuñu dem fenn. Mm-hmm. nga woo leen grand théâtre ñu ñu ñëw sañse ba rafet. Mm-hmm. daal ñëw toog nga woyal leen euh, lu neex setu tout et nag surtout nag mu tombé nag ak vingt ans. Mm-hmm. ma di ko feetee waaw ah, daal ko jël nag daal di def invité d'honneur mon grand frère Thion. laa demoon këram. moom tamit nag mu kontaan ci trop wax dëgg yàlla. macha allah bëgg ci tamit nag. waaw ah, parce que loolu. lu Sénégal di rafetlu. ad nooru Sénégal rek àdduna bi. àdduna bi waaw parce que man keroog ba ma jógee këram euh, li ma woo ci ay doomu aadama xaw ma nu ñu toll li yoon yónnee sama téléphone dama ko mujj fay. macha allah xam nga nga Sénégalais dafa bëgg lu rafet. Mm-hmm. ak ak lu jekk. Mm-hmm. tu vois. donc te comme maa ngi dégg euh, benn kenn di ko laaj naan ko ndax am nga surprise. Mhm. mu ne ko non aw ma surprise parce que loo moom bu ñu la ko joxee. Mm. amoo ama ama nekkul surprise quoi. Mhm. donc sant yàlla. effectivement mu nekk reconnaissance nekk loo xamante ni si milieu bi dafay xaw jafe. tout à fait c'est c'est un passage. non c'est c'est des retrouvailles yoo xam ni euh, moi je me rappelle. Mm-hmm. tout au début benn mm-hmm. moment. Mm-hmm. ak li ñu fi jot wax ci média yeeg. ak coow lu bëri diggante Assane Ndiaye coow Seck. bëri na ay épisodes c'est presque une série. Euh, boo xamante ni euh, am na ñoo xamante ni. xëy na peut-être ku ci waxoon. naka su dul noonu safaan moom tey moment bi moom am nga problème tout à fait nga am problème bu mag tout à fait moo tax toujours diggante surtout nag diggante bu bu jege mm-hmm. ku siy wax wala nga si jëf na xam mm-hmm. parce que mu yéex mu gaaw ñoo bokk dañuy dellu donc tey tey lu rafet la loo xam ni mm. yàlla na yàlla def ko mu yiw ak barke ci ci ñëw Bassane tu sais àddina mm. dafa am ñaari doomu aadama xam ne mënoo leen a fay dëgg la ki la yar mm. mënoo ko fay dëgg la ki la jàngal métier mënoo ko fay te moom dafa boole yar ma. Mhm. jàngal ma métier. macha allah donc na ko fay. macha allah <laughs> bon bu ko defee rek Fama ma daal di la bàyyi rek si euh, am nga question yoo xamante ni ko war a posé par rapport ak li nga xamante ni mooy événement bu muy jublu. dëgg la donc avant question yi sax euh, am plaisir jàkkaarloog moom ndax ndaanaan lañu ñu bokkal. tey mm, plateau merci. Euh, su ma nee ndaanaan nag mooy. Mm, mm. tey bi may sooy def recherche ba ne sooy wër parolier Sénégal ci artistes yi. Assane ci kaw top 3 yi lay bokk. ñu seen i ay bind. Mhm. dafay yeete di wax. Mhm. loolu mooy identité Mpassan si je ne me trompe pas. Mhm, ndax ràññee nañ ko ci yow. ay texte euh, par rapport ak say textes yu pertinent très fort. yi nga xamante ne. ku ko dégg rek defar nañu bëri. nit wax na ma loolu. dëgg la abuy Assane Ndiaye jubbanti na ma. soppi na ma. donc tey say vingt ans nga féete. Euh, ndam la. waaw merci mbégte la ci nit ñu bëri. ndax jëriñ na ay nit. Euh, macha allah. et gis nañ ne vingt ans yi tamit da ko daal di. 19 bi. waaw 20 ans six titres. 20 ah, ans d'ailleurs le tout aussi voilà. tout 20 ans. voilà gens ont apprécié. Mhm, tout à fait ci ngéwél gi. ngéwél la neex plutôt. waay mm, ngéwél neex na ndax euh, Assane yaakaar naa mos naa lii ñu ne militaire nga naroon dem bay nekk. nekk naa ko nekk na ko voilà. <laughs> <laughs> deret gi yëngu. <laughs> neex na nga wax ko ci mu nekk son bu neex. waaye wax jot na moom itamit te wax nga ko ci donc ci 20 ans yi lan la ñu mën a xaar. wax jot na wax nga wax am solo mhm. wax wax jot na dafay dikk pap sax sànq ci par rapport mhm. Mhm. parce que maa ngi wax naan euh, ñi war a wax nañ jóg wax parce que bu ñu waxul euh, yuuxu dina jib te ñun Sénégal jàmm rek lañ fi war a ñaan donc ñi nga xam ne ñoo war a wax nañ jóg wax xaj na bu ñu waxee nit ñi dal xam nga nga Sénégal luy suñu chance am nañu yar ak teggin bu toll nii par exemple suñu kilifa yi bu ñu waxee dinañ dégg. Mm-hmm. te fi mu nekk nii dëkk bi metti na. Mm-hmm. Euh, yëf yi metti na donc kon bon ñi war a wax nañu wax. dëgg bu ñu bu ñu waxee rek mu jàmm am. am donc léegi nag par rapport a événement bi waaw. Euh, incha allah. Mm-hmm. Euh, naturellement sama événement moom dafay bari spectacle. man moom mooy bëgguma guddee commencé. incha allah te aussi. bëgguma it ñu tëj rido yi sama kaw. Mm. bëgg naa balaa waxtu wee jot ma wàcc génn abal leen. Mm. kon nag li may ñaan rek mooy na ñëpp teel a ñëw. respecté ko ñëw rek voilà. Mm. bu ko defee incha allahu rabi buñ nee acc rek. Mm-hmm. Euh, Sen TV joxe na signal bi rek. mais ci spectacle boobu damay bëgg nga nga ñu xuus ci tuuti. parce que nag kumpa gi tamit baax na ci waaye. non kumpa gee ci baax nag kumpa gi rek ci baax nag. xam nga loo ci bëgg a xuus waaye daal na am kumpa. xam mhm. nga boo boo bu amul kumpa. dootul am fële. waa bës bi waaw donc kon dañuy bàyyi lépp mu nekk kumpa. nga xam ne ku ñëw moom. kontaan xam naa ne moom ci kàttanu yàlla sotti Assane Ndiaye rek. Mm. ah en tout cas en tout cas incha allah rabbi. Ah, nañu fa la daal amiin ah. Mm -hmm. et, et, et moi, j'imagine Hassan Action sur la scène. Mm-hmm. <laughs> nee na nee na day toog eh, fu ngeew ngeew jot nee na mu ñëw ne ngeew ngeew hmm. du deme noonu de ah. de mukk ci àddina ah. <laughs> loolu dafa yomb dafa <laughs> daal mhm. lafa fay xew daal moom ah. nit nit da ngay ñëw daal moom xool incha allah incha allah alors est-ce que aujourd'hui tey jii nii euh, euh, mën nañ xaar yi artistes yu Gambie yi ñu daal ñëw hmm, waaw man ñëpp la invité ñëpp xam nga nag man waa fu ma dem mm-hmm. Mm-hmm. ñoom ñu ci yoon wi mm-hmm. dèjà ñoom jël nañu seeni hôtel ba pare am na sax ñuy jóge Angleterre ci billaay am na sax ñuy jóge Suède waaw ñoom man ma moom wax dëgg yàlla ñoom dama yàgg ñoom donc euh, loolu moom xalaatuma ko moom incha allah sama yàlla macha allah est-ce que man li ma ko bëgg a laaj mooy euh, est-ce que Assane euh, mi ngi ci forme euh, pour toj li nga xam ni moom mooy grand théâtre bi. vingt ans yi la ilaha illallah man je je m'entraîne minimum quatre fois par par semaine. Mhm. Ah. bu fekkee ne ne loolu mooy forme de kon bon forme baa ngi. bon je dis que ndax Assane mi ngi ci forme maanaam la voix les prestations. Ah. taxawaay bu yàgg bi. étant donné vu que ça fait longtemps euh, deful genre prestation yi. xam nga sax kañ la ma doon kañ gën a neex. Mhm. ñooy ñooy dañuy commencé dix heures ci suba. Mhm. dem ba dix huit heures ñu dem noppalu ko. waaw vingt heures ñu ñëwaat. <laughs> boobu la ma doon gën neex. incha allah bu dee loolu rek la moom. li ñuy ñaan yàlla la fay demee sax sant yàlla rek euh, ñaan yàlla yóbbuñu ci ak bakkan ak tegtal incha allah mais après fête bi aussi après grand théâtre bi incha allah événement bi euh, Assane lan nga ñuy promettre des ci scène musicale bi parce que tamit da nga xaw a effacé na di nga tëggaat soirée yi waaw bés bu nekk ñuy gis affiche yi chaque samedi waaw loolu it am na solo d'abord man maa bëgg rek euh, bon xaj na tamit nattu la mm. man maa ne woon rek damay bàyyi boo wax jot rek ma wax Mm-hmm. bu feeñ jotee ma ma feeñ mm-hmm. waaye bu fekkee toujours da ngay feeñ di feeñ di feeñ rek di nga war a bëgg a wax lu am solo kenn du la xool du mm-hmm. dëgg te man nag bëgg ma ko noonu man ni ma ko bëggee mooy rek euh, bu wax jotee nga génn wax bu feeñ jotee nga génn feeñ mais n'empêche nag bu affaire bi jeexee incha allah juste rek euh, ñu ñu dugg nag ci vidéo yi soirée yi day continuer euh, à l'Alizé Club incha allah rabbi kon yaa ngi tëgg Alizé kon ñu ngi tëgg Alizé vendredi samedi mm. mais depuis bi ma jógee tournée léegi moom les samedi lay tëgg parce que du ma am jot ndax répétition yi mm. mm-hmm. voilà mm-hmm. mais nag après euh, le le grand théâtre bu ñu raxasee le samedi bi. ba pare nag léegi nag ñu reprendre les vendredis samedi incha allah. Mm-hmm. kon euh, après le grand théâtre raxas dafay am le samedi. le samedi waaw incha allah incha allah. Mm. alors man li ma bëgg laaj rek mooy. Euh, qu'est-ce qui permet à Assane Ndiaye de d'avoir cette constance. yàlla. Hmm. du leen nag loolu yàlla ak lan liggéey ak lan bëgg li may def. te aussi tamit nag mu jaral ma lu nekk tamit nag. donc ma ànd tamit ak ay nit yoo xam ne. c'est vrai que euh, y a des départs y a des arrivées. Hmm. xam nga tu vois mais n'empêche yàlla dogal na ngéwél gi mu ngi dund ba léegi. Hmm. kon bon sant yàlla te tamit xam nga àddina aussi dafa am ñaar dafa am loolu ñuy wax. chance ak mérite xam nga chance moom euh, mbir yàlla suñ borom la mérite moom loo xam ne la tamit mbir yàlla suñ borom la mais chance fu mu fu mu fekk mérite ndeysaan dóor ko ba muy bëgg a dee mm-hmm. parce da ngay gis ah benn waay boo xam ne day yeewu suba teel jóge këram paas sax taxi amu ko mm-hmm. ay tataale dugg fi wàcc fii dugg fi wàcc fii dem mm-hmm. mm-hmm. yenn doo yenu ba ngoon jot dépense su këram sax mu du mat mm-hmm. benn euh, waaye tëdd fële moom dina la wakk jóg rek jékki-jékki rek yeewu rek voilà yàlla yàlla ubbil ko bunt bi moo tax ñu ne la chance fu fekk mérite dóor ko ba mu bëgg et pourtant ça devait être le contraire. normalement waaye. mais tu a mbir yàlla bindoo noonu. yàlla daf ñuy wane ci wax eh, li nga <laughs> xamante ni mooy voilà ah, voilà Assane bu fekkee ni yow tamit tu as des questions par rapport à l'événement yow mi nga.